combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bëri na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam moom sama kopp xool de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man mu ngi noonu nag affaire bi 1 plus 1 la égal 2 bu jógee ci Moussa Ndoye jógee Yaraax nee naa bi lañ def ñëw fii ci golf fekk fa xale wax l' enfant de Casamance l' <laughs> de Guédiawaye waaye li tax ñu naan mbër bi kooku lañ soxla ah, muy fan club ba dañuy daal di nuyu prési rek euh, xuus moom tuuti ci waxtaan bi prési maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay bu baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. di la bàyyi nga nuyu internautes yi daal di président fans club Balla Gaye ak sa caisse internationale waaw ñun ñoo ñoo gérer lépp comprendre na aussi seen teewaay tamit ñoo ngi leen remercier kontaan si yéen trop trop trop ni yéen fi teewee parce que soo fi teewee rek déjà di defaraat lu bëri su mbooloo mi. Mhm. ginnaaw bu ma la nuyoo nag ngeen jëm ci bis bu mag. Mhm. le ku ne xam ne Sa am na combat bu rëy. ndax mhm. lan. dafa jóge ci défaite mhm. toog année balance mën naa trois ans gën na ci làmb ji muy ñëwaat ci làmb ji mhm. yéen ci moom wàllu mobilisation naka ngeen koy waajalee waaw alhamdulilah ba réunion wu ñu tey rek euh, boo xoolee un mois bi yëpp ñun ak Sa Thiès toog di waxtaan di réunion mhm. bu neexee yàlla yant bi Sa Thiès combat yu mu am yëpp bii mooy ëpp mbooloo bii moo si ëpp mbooloo téeméer yoon parce tey waa Gambie dañuy ñëw waa Casamance dañuy ñëw waa Kër Massar waa Nouakchott ñoom ñëpp dañuy ñëw. Mhm. kon mobilisation incha allah bi neexee yàlla moom dañu fi gis ñu mës a gis. Mhm. voilà. dinañ gis ñu a gis ba tax na mobilisation ku wax mobilisation war wax mhm. mbooloo. ful bi ñëpp du ñëw ñii jóge par ci ñi jóge par ça. yéen a ngi pare sensibiliser supporters yi. ngir li xew ci làmb ji mën naa ne sax du ma ne lu baax la phénomène la. bu mbëri yi waree jàkkaarloo seen supporters yi. par contraire ñoom ñooy jàkkaarloo seen biir. di sànnante ay xeer. di yàqalante te loolu lu ñaw la ci image yu làmb est-ce que ngi sensibiliser seen bopp. ak ñi ngeen di àndal pour jour yi ngeen mën a préparer en conséquence.

mbër bu jógee ci defet li ñu naan gaynde mer la fanaanoo naka ngeen di waajalee seen mbër. waa alhamdulilah ba Salif moom am nañ si moom yaakaar parce que am nañ si moom yaakaar mooy tey moo ñu tàmmaloon victoire mhm. far yàlla def ay dog-dog am lu si xew mhm. te bu neexee yàlla combat bi ñëw dañu amaat beneen victoire mooy dina dal dina tey. dinañ ko ko conseillé wala sa Sathies dafa indi beneen changement ci làmb parce que ku xam Sathies xam ne. Mhm. bu arbitre ne prix bi mu dox sa kaw loolu ñëpp xamal nañ ko ko jëwam la sa jëw boobu moom du ko nëbbal kenn du ko du ko du lekk mhm. moom arbitre bu ne prix mu dox sa kaw mhm. te Moussa Ndoye dina xaar loolu en conséquence est-ce que yéen dina ngi xam xaar loolu conseil ko mu bëree neneen wala ni mu daan bëree lay bëree waaw xam na Salif rek moomul boppam mhm. def naa fans yi si lañ bokk bu ko fans yi conseil dañuy jël parce que ba ñuy réunion ñëpp wax nañ ko ko teeyal te Salif bu mosul kees mosul kees moo tax dañ ko këpp nag saa kees dina ko këpp bu neexee yàlla yant bi mhm. xoolal heure bi xoolal jour moo la ko wax à la de deux jours du mhm. dama jógee yaraax mhm. Sa dafa xeeb Moussa Ndoye te loolu Moussa Ndoye mooy nekk mbër bi koy faj yéen ngeen jege Sa Thiès ngeen koy wax non Sa du xeeb mbër parce que lox du xeeb mbër mooy mooy nit la nit doo xeeb sa adversaire parce que wax moom wax la rek parce que tey ji ku si nekk day bëgg message pour gagner wax bi kon Saafii di ko xeeb parce que bu ko xeeboon du jël avance am. Mhm. am nañ combat bu mag nag waaye dañ si ñaan suñu borom may ñu si victoire. Mhm. Mhm. Sa Thiès moom ay supporters mën naa ne partout. jour ji waaye yaraax nee nañ. 8 heures la ñuy añ. 10 heures fekk leen stade yéen pare ngeen pour teel dem stade wala est-ce que yéen. mën ngeen dëkku supporters yi waa waa yaraax waaja. waa xam na léegi-léegi si biir wax rek nee naa la dañoo jëlee gaam yaay ay Malla ak waa Casamance. kon xam ñun pare nañu mm-hmm. te bu neexee yàllante bi jox nañu ñaari nag balaa dara xew pour l'instant waa Gambie ci lañ bokk ñëpp si mm-hmm. la ñuy egsi bi mm-hmm. moom lépp lépp lépp na bu soobee yàlla dinañ xam bu neexee yàllante bi boo demee stade yàlla nañ ko fekki jàmm te dal ko jour ji mhm. mhm. ku ne xam ne fëggu supporter kenn mënu koo téye mhm. waaye boo demee bis bi est-ce avant sax yéen a ngi waxtaan seen biir entre supporter wala ku ci nekk da demee sa xel boobu rek boo demee loolu fa fekk baax na waaw xam na sànq si biir wax nee la ñu dañuy réunion ñu duñu xaar ba combat am rek non u Sa Thiès di di jokkoo supporter Moussa Ndoye genre waaw loolu moom ñoo ngi ñaan ñoo ngi waaye comme que ñoom ñaar duñ ko waxee woon ñu dañuy ñaan yàlla mu amee noonu Euh, su supporter Sa Thiès si sama saa ñu def fair mm-hmm. ñu ñëw nax leen tàccul tàccul leen sax daan leen dem ñibbi mm-hmm. après ñu éviter leen fête fii incha allah éviter Moussa Ndoye mu ñëwaale. ah warum demee noonu xanaa da a déggoo waaye yàlla leen daan ñu éviter leen. noonu éviter ma ne yooyu noonu yaa ngi ko mën a xam maa bëgg leen. non xoolal ñun ñoo leen di daan éviter leen mm-hmm. li ñuy tëjee léegi la teg danga fab ma daal di nuyu kii. ok xaw xuus ak moom tuuti rek daal di dellu si waat ah. waaw. <laughs> jàmbaar ji maa ngi leen nuyu. maa ngi fay tur bi naka la nga xool sama caméra. présenté waaw Ousmane la Ousmane Ndiaye. waaw. kañ jug daw koñ <laughs> la de. waaw maa leen nuyaa ah, di nuyu waa Leewtoo TV. Mhm. di rafetlu seen teewaay fii am na solo trop parce que. deux jours après euh, du combat ngeen ñëw bugg sensible supporter vraiment c' est très intéressant quoi. Mhm. ñun ñu di leen dalal quoi. naka ngeen préparé combat bi. waaw combat bi ñu ngi préparé comme yeneen combat yi mais bii nag psychologiquement defal naa ko. Mhm. psychologiquement ngeen di bëri ku jóge ci défaite. ngeen mhm. ngeen toog 3 ans bëri leen. koo mhm. xam ne dafa xiif dafa jàpp ne instant bi yeneen escalier yi dangeen na foog ne ci moom lay yombee mais ci moom la dana métti naka ngeen koy waajalee. waaw dafa fekk nag gaynde gu gën a xiif yàlla xam ne ne parce que soo xoolee dañoo toog 3 ans bëriwuñu ñu jóge si défaite comme moom kon lim mu jógee si défaite ñun noonu la ñu jógee si défaite combat bi lu mu ko jaral benn jaral ñu téeméeri junni yoon. billaahi combat bi non dégg nga léegi président la wax nee na lal waa Gambie ak waa Casamance Salif musul am combat ba waa Gambie waa Casamance ñëw mm-hmm. kon combat bi combat au niveau la mm-hmm. dañoo jaral trop trop parce que xam dañoo jaral yàlla def bañ yëg si yëg si salaam di xam maanaam waxuma avant arbitre bi sifflé di xool stade bi ngeen gis seen bët di xam ne combat bi dañoo jaral trop yéen ban heure ngeen di ñëw bi dañoo jege ñun dañuy est-ce que comme du ma julee euh, kii fajar incha allah. <laughs> fa lañ julee fajar. <laughs> Eh, fajar laa fajar fa lañ julee fajar. fa lañ julee fajar incha allah parce que soo xoolee stade bi waa waa Yaraax su ñu naan stade bi fa la ñuy 10 fa lañ fekk ñoom bala ñoo jugee Yaraax ñoom est-ce que mbiru jot sax ñoom Yaraax ak euh, stade ñu fi lañ dëkk stade baa ngi nii technopole mu ngi nii. Hmm. ñun ñooy borom stade bi de ñoo leen dalal ñoom nañ ñëw ñaan njëkk ak teranga ñu dalal leen si njëkk ak teranga hmm. daan leen si njëkk ak teranga ñibbi si njëkk ak teranga loolu kese la. Hmm. sensibilisation bi. ku ci nekk am nga ci part de responsable. ku ci nekk rek acteur nga ci jour boobu noonu. waaw surtout loolu parce que euh, dañuy wax non à la violence parce que ñun lu mu bon bon ñooy daal Moussa Ndoye ak waa Yarax ku ñu xool ku xool fans Balla ak fans Sa Thiès daanaka benn la mosuñoo yàq làmb te duñu mos a yàq làmb dañuy dañuy ñëw def li li ñuy làmb santaane ñëw bëreeg yow neexal estat daan la nga dem ñibbi comprendre nga loolu la ñuy def mais di wax waa Yaraax nañ ñëw si njëkk teraanga rek parce que làmb moom kaf ak ree la ku daan ak ñu ànd ñun tu yàlla xam ne suñ ko daanee dinañ ko yëkkati kaf ak moom fën ko ree ko gunge leen ñu ñëm ñibbi. président mu ngi koy wax dinañ invité incha allah. dinañ invité dinañ daan invité leen. boo ñu loo leen def yéen ñoom dañuy ñu ay lakk jën yaa loo leen def. est-ce que duñ kii comment dire sax kii nii c'est bon nga ñoom dañuy jaay nañu ay ay lébu lañ fi ñu leen gën a nekk de man mi ñu wax lébu laa lébu si ndey laa ñoo la ngay nekk lébu fop ñun daal sawaay ñoom nañ xam ne carrément dala ba ñu leen dala dinañ leen daan pare invité leen def leen caravane bi biir géejawaay wala leen xam géejawaay dafa rafet géejawaay moo moo dàq yaraax xam nga leen visiter xam nga visiter leen terre bi teer bu bees bi xam nga visiter leen euh, kii bi comment dire sax euh, autoroute bi visité leen xam nga dinañ leen lépp loo xamante ni daan leen pare visité leen géejawaay pare bàyyi leen ñoom ñibbi quoi. ñoom ñu jàpp ne kii di Sa Thiès dafa xeeb seen bër wala da koo tuutil dafa heure bu day jéem a minimiser keroog ba seen mbër. non non non sérieuse loolu amul dafa am confiance xam nga mbër bu am confiance ak mbër bu minimiser bokkul xam nit ki soo entraîné ba am doole sa doole ngay wóolu ñu dañoo wóolu suñu bopp pas minimiser c'est-à-dire xew benn mbër n'est-ce pas li maanaam li ko li ko li ko xelam may ak li li ko doole may loolu loolu lay waxee pas pour xeeb Moussa Moussa Mboye soo xoolee si communication moom moo moom sax mooy jéem a xeeb Sa Thiès sax parce que mu ngi wax si benn euh, seen signature passé naan ko maanaam dàq bëri fop maa dàq bëri kon ku ku dàq bëri yàlla na yàlla may ndam moo dàq bëri ku dàq bëri yàlla na yàlla may ndam jour boobaa dinañ ko jàngal bëri billaay. tegal sa baaram jëli soxna joxam tonton mu nuyu ko sànni si ñaari kàddu sama nijaay maa ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi daal di présenté wu. ñu ngi leen di fay. maam Cheikh Ibra. Fall Ndiaga kaay waay jëli si ñu ngi leen ngi leen di gërëm tamit si teewaay bi ngeen teew di leen gërëm fu ngërëm commencé ak ba amul app daal. bilaay delloo nañ la ngërëm beeg ziar bi yëpp nga nekk fii ci golf xam Sa Thiès muy waajal combat à deux jours du combat loo koy conseillé soxna conseil instant bi. non Saliou moom wax dëgg yàlla amul lu ñu koy conseillé Saliou xam na fi mu jógee xam na fi mu jëm mbër mu xam fi nga jóge xam fi nga jëm jarul conseil Saliou xam na li mu war a def bu baax. muy bëreeg mu Ndoye ku xam Moussa Ndoye xam ne mbër bu dangereux la. tey xeex day bëri te foo ko laal rek Moussa Ndoye da lay wuyu est-ce que yéen a ngi koy préparé en conséquence. Moussa Ndoye man gisuma non Moussa Ndoye gisuma garaawaay. jàpp da koo dóor ba tonnerre daw. non Moussa fi jàpp tonnerre ñaata nit a fi dóor. waaw Moussa Ndoye ko def moom amut. waaw avant moom muy am ay ndam nii ba toll fii ñaata defet la am loolu la war a xool. Mm-hmm. moom daa jógee ci ay defet doog a ñëw def exploit doog a ñëwaat fii amaat defet. Mm-hmm. loolu la war a war a relancer waatee bi lay yeewu waatee da jàpp ne Sadio fu ko jàppee nooy neex waaye au contraire moom mooy nekk nooy neexu Moussa Ndoye ma jox la benn affaire ma wax la si benn affaire combat bi daal lenn laa a wax. Mhm. si mooy. Mhm. yàlla moo yor ndam di ko joxe. Mhm. mbër mi liggéey na li mu war a liggéey dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guy ñu àndaat ñibbi si géejawaay. ci li nga xamante ne moom yàlla nangu na ko waaye ñun ñoo ko sabaru mu daal di am violence bi nem ci làmb ji nga nekk mag. soo doon conseillé xale lan nga leen ñi doxee ko jour làmb ji. non ñun moom d' abord ku ñu xam xam ne non violence ñoo ko njëkk a xeex géejawaay. Mm-hmm. invité ci kull nag ku nekk si télé ak si rajo. Mm-hmm. ay ñoom per Bekkaay tout le monde invité na leen fi géejawaay. Mm-hmm. xeex fi no violence. tey gars yi bu ñu ko mënee jël def ko slogan di ko kii ci làmb ji fii lañ ko jëlee. loolu moom lu leer la ñi may taxawal nii président ak ay ñoom ñi Baye Fall ak ñi xam nañ li may wax. parce que fi la leen fekk. ñun moom doxuñu si daray xeex. ñun bon dañuy dem làmb ja ñaan yàlla yàlla may ñun dem ñu ñibbi ñibbisiwaat géejawaay feete ko loolu kese la amul leneen. mu naan bëre bu geesoo gis magam Balla gay numéro 2 tey bu geesoo du ko gis loolu noonu lan lay def ci moom est-ce que dina am manquement ci moom wala. amul lenn lu muy def ci moom ñun ñooy Omar Omar mooy ñun. Mhm. ah ñun ak Omar boo ñu fekkee fii. da xam ne ñun ñooy Omar Omar mooy ñun. Mhm. moom manqué wul ay mag de. Mhm. amul benn mag bu mu ma Balla Gaye mi ngi fële mais mi ngi mel ne mi ngi fii. waaw bu soobee alxuraan mhm. a ah, ñun daal dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam li ma si mën a wax daal mooy xam na fi mu jóge te xam na fi mu jëm. Mhm. waaw yàlla ñu yàlla defal ndam lu sedd guy. merci beaucoup mon père ah kontaan naa ci bu baax a baax. sang bi. waaw bisimilah. te maa ngi sant waaw. Cheikh Ibra Fall ah borom borom Baxdaad <laughs> <laughs> naka ngeen waajalee seen combat. comme ni ko doon waajal rek miis nañ loolu waaj ko moom miis nañ ko. nekkul c'est la première fois ñuy waaj combat. Eh, eh, dama lay dagg de waaj combat mis nga ko waaye combat yi duñu benn. combat Moussa ngeen am Moussa Ndoye du dara. combat combat combat la Moussa Ndoye du dara. dañ doon dañ doon am combat yu ëpp combat Moussa Ndoye Moussa Ndoye moo ko ëpp public foofu ëpp ko lépp te dañ ko gérer nicement. mais bi bokkul parce que bi àdduna àdduna wër nga këpp ma la Sénégal de ñëpp ay xaar Sa Thiès ndax day yëg wala day dugg ci biir saako yi. balaa boobu sax nga may ma nuyu sama gars yi. nuyu paay bu ak Ousmane. papa grand papa Ndiaye ak sunu président bi Assane Cissé. di bëggee supporteur yëpp supporteur Balla Gaye ak. Sa Thiès gaaw balaa muy sedd. sama il faut ma mayoo ma nuyu parce que ñun ñun ñun. waaw dama lay wax dama lay wax ñun ñëpp ñëpp ñëpp international lañ. ñëpp ñu xam waaye il faut mu il faut fans club yëpp maa ngi bëggee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw bisimilah waxal. question bi day seet wax naa ko dégg nga comme yeneen combat la rek Sali Sali préparé combat du lu du dara ci du lan mooy lan mooy Moussa li waay yaraax wax maa la koy yeggee. lan la wax. nee nañ la la ci ñaa ñaaya xam nga ñaa ñaay. booy ñaa Malick ñaa looloo lay dalaat juge yi. loolu paase na. ndooy ndooy yi la ñuy bëreel. waa ndooy ndooy yi nag ñoo wax. waa ndooy ndooy nag léegi ñu ñoom nañ ubbi seen bët xool ñu nañ ubbi seen bët xool Moussa Ndoye li mu si làmb ji wax na ko pare na ci Salif li mu doon def def na ko instant ñun ñoo si def ñun pare na mhm. pare nañ mais Salif moom pour moom non pare na. wàllu mobilisation bi. jekk nañ président wax na la ko. président maa ngi des na benn question bu saf moo la bëgg a laaj léegi nii dama leen toog bañ sës. gars yi nii xam nga dama la ko wax sama biir wax man ñun min nañ mobiliser. parce que ñun chaque jour dañuy communiquer ci yooyu. surtout ma combat bi dañ cee gën a communiquer parce que déjà dañoo am ñaari combat yu tegaloo. kon dañuy gën a liggéey ci loolu. kon xam nga ne instant yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi un mois yi yëpp dañoo liggéey ci loolu. ndax un mois euh, distance bi. wax naa la ko nee naa la ne nee naa la dañoo nekk si xam mën naa mën a def dañu ko miis. Mm. ñun miis nañ ko wax naa la ko sànq si ba caméra yi fay wax naa la ne mm. kañ lañ commencé ànd ak mbër bi yàgg na. Mm. kon ñun miis nañ public miis nañ miis fii chaque jour nga gis combat ñu ne supporter Balla Gaye wala supporter Sa Thiès mais dañuy ñëw feesal ko dell. Mm-hmm. fii lañ jógee dem parcelle feesal ko dell ñun loolu miis nañ ko. lan ngay wax Moussa Ndoye. non Moussa Ndoye amul lenn lu ma koy wax mooy na pare daanoom rek amul dara. jàpp ne combat wax ji ngeen ci am wax soo leen paree julli ma wax la ma wax la lenn bi ma gis nii booy bu ndaw bi. booy bu ndaw bi ma gis. kuy booy bu ndaw Moussa bu ndaw bi ma gis kuy bu ndaw bi. Sa Thiès ah Sa Thiès d'accord. bu ndaw bi ma gis daa xeeñ xunnu agent yi nii lu leer laa la wax pare na ci lépp lépp man gis ma ban plan nga mën a jaar yow pour jaar pour pour daan booy bu ndaw amul xam lan moo lan moo la war ñëw rek pare pour daanu parce que ma gis moos kii de lu leer la wax gaynde mer la fanaanoo de mer maa lay dégg sànq ngay ngay ngay posé Papa Ndiaye question naan ko xam nga nan ko Balla Gaye neew feeg yooyu booy gis na yooyu ay Balla Gaye Papa Ndiaye wax na la wax ju am solo gis nga nga moom mu gis Balla ak mu gis ñu lépp benn la ci moom parce que ñun ñooy ànd ak magam kon bu ñu gisee xelam day gën a dal sax day gën a day gën a léger wu pour bëre ni mu gis Balla Gaye pression bi day gën a yokk kon ñun sant dañ yàlla ci loolu te mu nekk tamit booy bu am yar booy bu neex a jàppale booy bu neex a jàppale dégg ndigal déggal ñu ñun ñii waaw kon booy bi dañuy sawar pour soutenir ko pour jàppale di ñaanal ñaanal ko yàlla yàlla mooy ko ndam lu sedd guy di gërëm sama gars yi nag waaw moom bàyyi nga doxal. jox ma déranger ma déranger ko. paa bi wàcc nañ comprendre nañ déranger waaw soxna si te du la nuyu. xoolal caméra bi. waaw soxna si ñoo ngi lay fay. di la dalal comme nu ko sama collègue yi waxee effectivement di la ñaan nga dal jàmm quoi. Mhm. dama leen nuyu ngeen di waajal bis bu mag naka ngeen koy waajalee. waaw bis bi comme ni ko gars yi waxee rek daanaka répétition lay doon quoi euh, ñun moom mis nañ di na na ko Baye Fall waxee ñun ñooy fan sa club bu Balla Gaye maanaam euh, famille Balla Gaye quoi. Mm-hmm. national waaw national ak international. Mm-hmm. daanaka bu ñuy waaj du du yem Sénégal kese. Mm-hmm. maanaam waaj bi day génn day génn frontières yi. waa comme ni ñu ko expliqué léegi léegi am nañu ay gan yoo xamante ne xëy na peut dinañ ñëw fii ak suba. te incha allah ñu ngi si ñu ngi si préparation yi daal incha allah. wàllum mobilisation lañu wax ku wax mobilisation wax jàppale est-ce a ngi am jàppale bi war pour bés bu waaw effectivement parce que tamit comme ni ñu koy waxee euh, feccum liir bu neexee ndey day jàpp sa mbagg ya mhm. te effectivement yaakaar naa ni leader yi nekk euh, biir géejawaay xëy na peut-être ak bonne volonté yi maanaam du ñu seetaan quoi comme suñu combat yi weesu yaakaar naa ñu ñu ngi gis seen i loxo quoi te combat am na ñu ñu gis mais am na aussi tamit ñu ñuy xaar ñoo xamante ni gisaguñ leen te jàpp nañ ni balaa fi ak balaa samedi incha allah dinañ leen gis quoi. est que doo lancer la mu dugg avant waaw effectivement comme ni nga ko waxee loolu moom euh, daanaka mooy mooy mooy li war a nekk parce que bu ñu ci jàppee dañ ci war a jàpp bu ñu ci jàppul aussi tamit dañ ci war a jàpp. waaw parce que tamit aussi euh, comme ni ko euh, ku maanaam ku waari yaani sa dëkk sa dëkk tëggul waaw te ñoom xëy na peut-être fii mooy seen fii mooy seen tiitaru te bu ba Sa daanee xëy na peut-être Guédiawaye mu am ndam kon ñoom noonu ñoom dañoo am obligation xëy na peut-être ñëw jàpp ci combat bi comme waaw. ni ko dëkk ah, naa wax bëggoon naa wax tamit ci côté sensibilisation bi. comme ni nga ko waxee expliqué xëy na ñu ngi wax ci violence bi mais aussi tamit bu ñu fàttali ni xëy na peut-être euh, euh, Covid 19 baa ngi fi quoi. xëy na peut-être di ñaan supporter képp kuy ñëw xëy na peut-être na nga gàdduwaale sa mos comme man ni mu ko defee. ñu sol ko parce que tamit aussi xam nga tamit waaw mooy loolu daal. Mm-hmm. waaw loolu laa bëggoon wax quoi. Eh, bëgg naa ci yow trop c'est très important loolu noonu. ba léegi mbas bi dafa wàññeeku rek mais jóge fi suñu fagaru ku ci nekk ah. président damay dellusiwaat ci yow. Ah, combat bi dañuy dellusiwaat ah. ñu jàpp ne combat bi ngeen yaakaar instant bi ah. mm-hmm. kala sax ñu ñëw toog balaa xamante ne kaay kaay ma gis la kaay naa def. ça va yaa ngi président Arma yaa ngi tëdd. yaa ngi ko mën a. xarit ziar naa na am lépp jàmm. de. oui maa ngi delloo siyaar soxna si maa lay nuyu di siyaar. Mm, bon ma balaa tout maa ngi nuyu mbokk internet yi xam ne ñoo ñu seetaan ñëpp. Mm-hmm. ku ci nekk si turam santam. waaw di nuyu ñi nga xam ne ñoo la fekk fi ñu toog ci mel ni assan président national ak grand pape. Mm-hmm. ak Ousse bu dérangeant. waaw di wax combat bi ni koy waajalee comme ni ñu doon waajalee yeneen combat yi rek mais nag bii dafa am particulièrement loo xam ne nii xëy na dañ ci jóge mm-hmm. waaw ñu war a ñëw wa waat suñu bopp comprendre nga saa ngeen mu jëm. waaw kon li ñuy tax a jóg daal mooy xam nga jàppale sa Akess moo tax ñun ñëpp ñu jóg. Mm-hmm. tax ñuy wax mm-hmm. bi mais mënul xam li nekk ci ko xam. dëgg la parce que yéen mm-hmm. moom sa ñëpp fans club yi Balla Gaye de yi gars xam nañ ne ñun kenn mësuñu dégg violence Balla Gaye yàgg na bëre. comprendre nga te yaakaar na ñun ñu supporté Balla Gaye ñu supporté sa Akess comprendre nga kon ñun kenn xamuñ ci violence ñun loolu lañ ciy liggéey ñun suñu fans club ku amul ku amul benn cër bi sax doo nekk ci biir fans club bi parce que dafa ay règlement balaa nga ciy dugg da nga koy mag ñun ñëpp comprendre nga on est daal am na yoo xam ne nii xëy na waaw day am ñoo xam ne dañuy rax si affaire yi comprendre nga te làmb ñun ñoo ko bëgg suñu sport national la kon am na loo xam ne nii ñun duñu seeraan muy am si làmb ji des fois nag liy am lu bëri ci làmb dañ koy dañ naan fans club yi ñoo koy def la ñoo koy def mais dañuy ku bokk si fans club parce que da am carte membre ko am carte membre di ko yóbbu esaat yaakaar naa ne boo demee am ne loolu ngay tal waaw ñun moom wax dëgg yàlla côté bi ñu ciy liggéey liggéey nañ a baax ba nga waaw yaakaar naa côté violence moom bu fekkee ñun fans club Balla Gaye moom kenn mësuñu ci xam waaw te duñu ci gis. président ñu dëkkaat ci yow ba léegi. waay làmb ji. waaw ci bismillah. Mhm. waaw Fatina maa ngi nuyu mbër maa ngi lay nuyu fans club international yëpp ñu ngi lay nuyu di la wax yow waaj liggéey bu baax nag ñëw jox ñu ndam parce que yaa ñu ko tàmbal Balla nuyu nañ la si côté boobu Balla Gaye fans bi nee na liggéey bu baax indi leen ndam yaa ñu tàmbal ndam bëggee nañ la bu baax nag waaw dundu Père Diabaye. du lay bëggee bu baax ah le lion. nañ ko bu baax. waaw waaw ñoo ngi koy gën a bëggee ñoo ngi koy gën a bëggee nuyu Père Diabaye. al Père Diabaye parce que moo ñu ko yor fan si club international Balla Gaye 2 mu dem ba nekk mag teg suñu loxo. ñu doon ñoom Papa Ndiaye ñoom Khadim Baye Fall Adou Gueye grand Adou Gueye ñoo ngi lay nuyu di la ziar comme lu sànq lu Baye waxee rek fa laa waroon tijjee képp koo xam ne fan si club international bu Sa Thiès bu Balla Gaye ñoo nag yaa ngi fi billet yaa ngi fi oto yaa ngi fi waaj leen bu baax a baax nag balaa may ñëw ci loolu sax dafa loo dañ ko for ci wéewu béy mhm. ñi naan dëgg la ñu ko mhm. ci nekk leeral ku mhm. nekk joxe sa point de vue ndax ñun ñaan ñooy wax mais adduna bi ñoom moo ñu seetaan dëgg la wala laaj naa ko kaw Moussa Ndoye laaj nañ ko Moussa Ndoye ku ci nekk wax nga mais kaw Sa moo des dañoo for ci wéewu béy ñu ne ci wéewu béy waxuñu ko dañoo yónnee am supporter bu ñu yónni. Kër mhm. Moussa Ndoye mu def ay yaam nga xam loolu dëgg la wala. waaw non sànq rek maa commissaire ak Baye Fall fi lañ si nekk di su waxtaan. Mhm. wallahi azim si alxuraan laa lay giñal bu nekkee dafa jógee si waa camp bi ñu yónni ko yàlla bu saakees am ndam sànq rek fi la ñu nekkoon di seetaan photo bi wallahi azim yónni ñu fa kenn mhm. avant yéen ñëw rek si débat bi lañu nekkoon kooku mun na am ñoom bu ñu ko jàppee bu ko police am na ñoo xam te nag ñoo siy bëgg bës benn nit ñëw foofu rek jàpp ne waa kër Sakess ñoo ko yónni mm-hmm. c'est que day nekk mm-hmm. xel quoi mm-hmm. waaye ñuy taluñu dafa yónni kenn ñun wóoluwuñu ay def Sakess boppam la wóolu ginnaaw yàlla boppam la wóolu te incha dina ko daan loolu ay wax la rek ñu fa kenn loolu entreprise leer na dañu naan ku fóotal mbëtt rotti rocci bar lañ koy wax wala waaw leer kon leer na naña ah. ci li ñuy tëjee mooy comme muy waajal combat ku ne waajal soxla jàppale. Mhm. est waa Guédiawaye wala autorité ñu waaw defe naa ni mooy Sa Thiès ñu mu tudd rek. Mhm. defe naa ni képp ku mu tudd rek war na ko mën a jàppale ko. Mhm. parce que nekk loo xam ne su poosam la koy dugal. loolu la koy dimbalee da koy joxaat fans yi. si la ñuy xéwaloo si la ñuy def ay billets si la ñuy demee. kon képp koo xam te ni Sa Thiès tudd na la. ya nekk waa Bente dëkk Guédiawaye ñëwal ya jàppale ko. parce que ñun Guédiawaye lañu am ñun Guédiawaye lañu dëkk. képp ku jàppale Sa Thiès def naa waa Guédiawaye na jàppale ko ko jàppale waa Guédiawaye duñu la jàppale loolu moo fi nekk quoi parce que ñoom waay moo leen may tur si géejuwaay la ñuy jàppale kon boog nañuy jàppale mbër yi ñoom bépp ku nekk rek ba si ASC yi sax dañ war a di jàppale parce que ñoom ñun ñoo leen fi teg loolu laa am lu ma leen conseillé politiciens yëpp waaw da ngay tëjee sa mbër ngay hmm, ko doon conseillé jour nga bëgg Sa Thiès bëree ko indi ko du man fan si nee nañu ya taxaw déglu Moussa Ndoye deux minutes bu ñëwul ya dem sekk ko foofu jàpp ko daal ñu ko ñibbisi ñu ne ya teey lu ñu ma yóbbante la ñu ne ya teey ya dal bu yàkkamte parce que boo juumee heure bu ndaw rek mun na si am yoo xam ne suñu borom li si bëggul mun na ko si am te yàlla bu mu am Salif bu teeyee amul ku koy yëngal si làmb ji waaye tamit aussi yàlla mënul moo mënul jox lépp nit yàlla moom mënul jox lépp nit waaye conseil daal bu ñu ñëpp di la supporter yëpp di jox la ñun ne dal rek ñun ndam daal lañu soxla waaye te yàlla nañu ko yàlla may si barke Seydina Mohamed lan nga tàggal ko waaw di nga di leen remercier euh, kontaan trop trop parce que lii rafet na quoi sérieusement parce que lii day tax képp supporter bu ko dégg rek dina dina dal dina gën a nekk nit aussi violence bi wallaay képp bokk si saa kees doo ko def mooy lu xaadim wax sànq rek ñu réunion ñu dañuy réunion tout le monde dañuy réunion képp ko bokk fan club rek danay am badge aussi tamit dafa am benn affaire bu may fàtte dinaa la ko wax mooy esat su jigéen ñi daanoo gars yi nañ ñi bàyyi benn membre du wàcc di ànd ak jigéen ñi wala góor daanu nañu bàyyi benn membre wàcc ànd ak moom parce que danay daanu jël sa téléphone dugal ko sa poche gars yi rocc ko léegi boo amlee sa benn membre kooku dina la mën a téye parce que tout le temps euh, loolu la ñuy def aussi bu Sa daanee tamit nañ ñu bàyyi ñun ñoo xam te ni ñun ñoo supporter Sa ñu toog Sa Thiès si ñun ñu tàcc kontaan. ñëw saafonteeg moom voilà ñëw saafonteeg moom bu ñu paree ñu doog a génn stade bi. waaye heure bu heure bu mbër bi daanee rek ñu dàq ñëpp loolu bu ñëwee ba si bunt bi day am mm-hmm. ñu toog ñu daal fay toog cinq minutes bëggee ba pare ñu doog génn nànk sekk ñee ñibbi ñu génn nànk ñibbi loolu la ñuy ñaan non incha allah am ndam bu neexee yàlla ndam moom incha allah dañ koy am mu ngi noonu ah, président moo doon wax président damay lay jaajëfal bu baax di la kontaanee ma sama caméra bu moom bi damay bëgg ci moom loolu moo nekkoon parole au fan parole fan nag comme ni ma ko waxee heure mbër amee di dinañ dégg suñu micro dem waxtaan ak camp bu nekk ndax ñoom ñooy yi ci Moussa Ndoye leen jóge kàddu yi rafet moo fa jóg kàddu yi teggi ne vraiment fair play 100 pour ba ñëwee ci Sa Thiès it ndax ku leen xam-xam ne ci fair play 100 la ñuy dox dama leen di bëggee ñaari camp yëpp di leen kontaanee bu baax ah ñi ma fekk président maam Cheikh Ibrahima sama sëriñ damay kontaan ci moom bu baax a baax kontaan sama équipe technique bi Fama Bilal moomoo maane sama chauffeur di kontaan ci ñoom bu baax di kontaan ci Leewtoo TV ak Leewtoo production combat bu mag ba nag le 8 août la Sa Sa Sa Thiès le 26 la waaye le août 8 août incha allah Boy Niang numéro 2 fils de Dégol Tapha Tine le géant du Baol loolu curuxu curuxu lay doon potu fondé ak lan en ah, fama ak lan ak takk jërëb waaw dafa leer ak takk jërëb mu ngi noonu ah seen face to face ba dimanche day am le la TFM en direct lay nekk en direct aussi sur Leewtoo TV dama di béggee yéen ñëpp ah, noonu lay def jox di dig daje ëllëg beneen événement ak beneen champion ci beneen yoon jaajëf combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo bañ bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xol de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man